ci lépp loo xam ne ah, mooy li yàlla bëgg mooy li yonent bi salaat salaatu wasalaam bëgg yar ci ak njabootam it ña mu tàggat mu tàggat leen ci ba noppi batale lool te àdduna melaw wu mën a yor ak lu mën a jommalaate mën la tabbi ci biir mbirum Serigne Touba ndax Serigne Touba da ko waajal ci bépp fànn ak ci wépp doxin ak ci wépp melo lu tax moom ba mu nee bërët rek dafa amul yitte jenn ju may boromam nekk nag boroom yitte ju kawe fekk fi lu bari yoon wi jëm ci sunu borom sori te bari ay ndëgg sërëx bari ay gàllankoor digganteem ak yonent bi alayhi salaatu salaam it nekk yoon wu sori gaa yu bari dox digganteem ak moom mu jóg am yitte ju toll nii bëgg baat boobu moo tax yonent bi salaahu salaam moom yi bi sëñ Tuubaa ñëwee nag bi muy engagé dane dalaltu aabidan dalaltu aabidan xadiman li rasul min aami ay shachin ila aami rahim loolu mooy li ñu tudde engagement total soobu naa léegi kat nekk nag jaamub yàlla dëgg dëgg dëgg buy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min aami ay sës muy 1311 di engagement boo xam ne kon Touba la ila aami nag mooy duutuma tekki sama laxasaay ba noppee gis sama jéego ci kaw foofu ci zahir sama guddi yépp daal ak sama bëccëg yépp ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ak feeñal mbiram ak liggéeyal ko rek nifaali wa ibqaa'i wa fawzi bila adan bi kawni qadim al mustafa tatabayyan kon yonent bi alayhi salaatu salaam mooy nekk sama yitte wéetal sama borom loola it moo tax mu nekk koo xam ne gëm gi mu gëm yàlla ak wéetal gi mu wéetal boromam kenn fekku ko ci amul benn yitte it xam nga doo dégg ñu ne tool yii sëñ Tuubaa ko moomoon ci la daan bay wala ñu ne jur gi sëñ Tuubaa ko daan sàmm baa moo koy sàmmulu magasin yi sëñ Tuubaa ko moomoon Cheikhul Khadim bugg mu am poos sax daw ko soxla kon moom ci lan la nekkee woon mooy waxtu wu nekk wala si fii kulli waxtin waxtu wu nekk fi ibadati man xabaahu jahran bi fatxin la martala waxtoom yëpp kër këreem yëpp moy wétal borom bi subhanahu wa taala diko jaar waye nak sep ci mbolem gàkk yi ak tâche yi mooy waxu salim min al afati jumlatiha wa ma nifaqan bima imanihi mazaja cheikhul qadim amul ben tash amul dogon ko nak cey bu nangam amutoon ay waye sëñ bi déedéet waxal na bopam ne yar musuma gar bum amat ak lutax tax nga def sama borom musuma wax awa ahmadu nangam bum amat musuma waxit bu ko def motax ci sañ-sañam ak katanam mas wax kenn ci mag ñi ko wax señu ma jëmbu silla ca njaareem day defal señ bi muy japp ba yàgg señ tuba nako ma jëmbu silla mu ne ko mbàkki mu ne ko yaakaar yi kenn kuma yaakaar du tas yowmal qiyam mu ne ko alhamdullilah mu ne ko ngir yowmal qiyam ngir jëm kat man kepp fa sañ yi bu suñu borom teewee jaam ñepp man kepp sañ na ñokket na yalla loma ma digal def musuma def loo may tere jéggalal jaam ñi pour dul man sañu loo koy man kon loolu mi ko amee ci loo ma diggal ma def waaye musuma def nag loo may tere kon ci loolu la doon bàggante muy Cheikhul euh, Khadim guddeem bëccëgam suba ngoonam li mu dund ci zahir lépp di juróom-ñaar fukki yi yu topp wenn waxtu wu ma sa ameel boromam amul te loolu doyoon na li des ci adduna ñu di ko jàngat ci sëñ Tuubaa waxuma jàll ci yeneen sëñ Tuubaa génn dundam gu nekk li gaa ñuy tuddee taxaw seetlu ci mbirum sëñ Tuubaa lañ ko waroon def gis nga bu ñu taxawoon seetlu ci ku dund juróom-ñaar fukki at ak juróom mosoo tiim mosoo faat waxtu soo tooñ kenn mosoo fayantoo ku la tooñ baal nga loolu buñ ko boole woon jël bindkat yi yëpp ak xalaatkat yi ñu xëcc seenu dund ba ñuy dund junniy at du tax mu jeexal jëf ji sëñ Tuubaa jëf ba ñuy jéggi di jàll ci leneen loolu rek mën na mën ca xam nga boo góorgóorloo ba doo tooñit mën ngaa bañ am xolum ñàkk mën a fayu boo góorgóorloo ba tooñoo fayuwoo it la nga yor man nga ko téye doo ko bokk kenn waaye mosoo tooñ kenn mosoo fayantoo kenn ku la tooñ nga baal ko loo am bokk ak ñoom te dund dund goo xam ne bisu bànneex mosu ci am mos ta dund ci bakkan mos ta dund ci bànneex mos ta dund ci noflaay te coono dundam gépp mooy fexe ba xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam mucc fexe ba sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam ñoŋ loola moo taxoon muy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mënuloo dégg baa nga gis ku royee yonent bi ni sëñ Tuubaa royee yonent bi alayhi salaatu salaam mënuloo gis ku bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ku sëñ Tuubaa bëggee yonent bi alayhi salaatu salaam ndax nit sax mën naa bëgg sëñ Tuubaa mais du ko tee bëgg xaalis du ko tee bëgg doomam du ko tee bëgg soxnaam du ko tee bëgg wata sëñ Tuubaa nag moom dane bi man bi hubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xeera sama xol bi de jeex naa ko jeex waaye doom mënu ci am place soxna mënu ci am place wurus sa xaalis mënu ci am place ki ko far ba dara nikkatu ci mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam léegi nattal boobu dimension ci bëgg yonent bi alayhi salatu وات بوبام نك تي سوفير كو با وخني خدي جعلته ترابا نعله يا ليتني لحظني بفضله نغول تانك يورنتي بي فلا تك سما لخ من لالتاي كو تي يورنتي بي جوغ تي بنين لخ با واي اكا نيهون مصطفى گن باتوما ريك بوما گيسون رك لي ما بوغ ما گيسو رك ما مالي صلاة والسلام بك جيم كو بك اك روي جيم كو روي nga xamne wute wul ساك اختفى المختفى حتى كأنهما لولا نبوة ثوبان قد نسجا gis nga différence bi dox diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi mooy li yàlla yónni kee mënul yonent rek waaye bu fekkoon ne yàlla yónniwul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wala ab yonent mujjewul ci yonent bi alayhi salatu salaam dan naan kon ka annahu huwa ka fële mooy kii ki fii mooy kële amuñu wuute sëñ Tuubaa fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg tànkam bu teggee fa la sëñ Tuubaa di teg tànkam nga xam ne amul wuute moo tax benn naar ba muy tagg sëñ Tuubaa daf ko wax ne ko antal mu rabbi bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa ma fil jili shawal gis nga yow saw doxin yow sëñ Tuubaa gis nga yow sa jëfiin yow sëñ Tuubaa gis nga sa melo yow sëñ Tuubaa moom melo ak jëfiinu yonent bi ñoo yem xarfan bi xarfin wuute wuñ dara waaye fa ma fil jili shawal nag moy mbollem xet yi mbollem mas gi ku ci melni yow amut yow seigne touba kon tektale na mom kenn la ko xamne amul ku melni mom ci bëgg yonent bi alayhi salatu salaam waye ni ni bëgg yonent bi la bëgg yonam seigne touba ila allah bil qur'an wa sunnati allati hadatni hadatni hadat saraftul kull wal qalbu khashi' gis nga seigne bi dafa leralal mbiram man de ci yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam jaare ko ci alquran ci laa jëm waaye ak sunna si yonent bi nga xam ne xëdët nii kon sunnaam roy sunna si yonent bi moo ma jubal waaye bi ma koy def nag dama ko booleeg na xol bu ragal yàlla xol bu jeex ci yàlla moo tax bu ñuy wax léegi-léegi di tudd baatu bokkaale di wax shirk dañuy sori sëñ bi ak ñooñ sëñ bi sëñ Tuubaa dane nahnu alladina laa naluutu abada illa bi rabbina huna kuma xadaa Sëriñ Tuubaa nee na nun tey ak ëllëg amuñu benn borom bu ñuy wéeru ku dul yàlla du ñu jaawale mukk suñu borom du ñu jaawale mukk yonente bi alayhi salaatu wasalaam yoon woowee mu jaarit ci guddeem ak i ci ay waxtoom loola tax mu egg ci wax ni fa man lam yalij nahjahu yuntadar bi xullin thaqilin wa naarin la am na yoo yitte bëgg a jëm ci yàlla te teg sunna si yonent bi teg gi aw yoonam sëñ Tuubaa nee na ko day des na ko xaare sawara ak ay jëng yu mën a lëgg ci biir sawara ndax day araam ci kii toppul sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam mu mën a jaari ci tabbi àjjana xaraamun ala man hudaahu aba du xoola jinaanin daxilan tarix kon wan na la moom foofu mu nekk guddeem bëccëgam subaam ngoonam di yàlla ñi mu doon yar di leen wammat ca loola la leen jëme gis nga moom mi doon wammate di yóbboo mboolem màndarga yi moo ca gën a mat bu dee ak sàmm bu dee ragal yàlla bu dee ak dëggu bu dee ak sell kenn du ca seen Cheikhul Khadim Cheikh Mamadou Bachir Mbacké ibnu Cheikhul Khadim nee na si minanul baaxil xadim te boo dellu ci karaamatu cheikh donc ci fekk sëñ Tuubaa da ko ma sox bi na ko man de sama tukkib géej gii dollikuuma ci dara mas dëtt bi dollikuuma ci dara dara dara ak lim ci dal ci coono mu ko ah tukki bi mu ne ko waaw mu ne ko lu tax ko dollikuuma ci dara xanaa lu dul yett kamalul iman wa kamalul islami wa kamalul ihsan dëgg dëgg dëggi matu gëm yàlla dëgg dëggi lislaam waaye dëgg dëggi nag rafetal sama diggante ak sama borom yii daal laa ci dolli koo man a cheku ko waaye dem naa nag ba xamal sama bopp ne am naa dëgg-dëgg yegg ci yàlla am dëgg-dëgg xam yàlla am dëgg-dëgg jeex ci yàlla borom bi subhanahu wa taala kon gis nga ne luy tax imaanam islaamam ixsaanam gën a mat gën a dëgër ci loola rek la Cheikhul Khadim doon dund ci Sëñ Tuubaa ca la nekkoon ñam doon wommat ci loola la leen wommat xoolal booy set ay ndénkaaneem buy wax ak mag ñu baax ñoo ñu ko toppoon kum ci mas di dénk lu mu lay digal jàngal leetar yi boo demee ci Mamour Diarra borom Cham mi mi nga xam ne magi sëriñ bi la bu koy dénk leetaram la mu ko waxoon maa ngi leen di diggal sax ci ndigali yàlla yi ak bàyyi tere yi waaw kuy naafila téeméeri rakka kaamilub alxuraan ngay naafila wéetal yàlla ragal yàlla ki nga jox sa bopp bu lay dénk di la dolli lu mu lay wax na ngeen sax ci li yàlla digle te bàyyi li muy tere xoole ku mel ni Cheikh Darou Assane Ndiaye téeméeri rakk la daan naa fi la sëñ Tuubaa nee na lu ko góor di jiitoo ci yàlla doonu lu muy jëf coobaree suñ borom rek lay doon ba ko sëñ Tuubaa di diggal lu mu wax fala tazal fi tuqaa wa rusdi mujtahida kay laa yulaaqi al isyan wal kitab maa ngi lay dénk daal lu yàgg-yàgg bul dañ kon ca la bur jóg kon ca la nekkon saxal ma nga ci won ci lan ci ragal yalla akuk jub lu tax ma di lako digal kay la yu laaxeeran siyaan wal kitab bo beugé mucc ci ak moy yalla beugé mucc fitna ak na da ngay fexé ba sax ci ak ragal yalla deg Cheikh ibrahim sar ñaan ñu ko dox lu ko wax fa dum ala sidiq wal ikhlas mujtahida fi sirri wal jahri kay tanmu mazayaka maa ngi lay digam lu yàgg-yàgg na nga sax ci ñaar ak siddiq wal ixlaas muy dëggal ak sellal kon ca la nekkoon waaye ngir lan nag daf lay jural mayug yàlla garab garabug mayug yàlla ndox ma koy suuxat mooy dëggal ak sellal ak siddiq wal ixlaas ngir mu mën laa jural mayug yàlla bu dolli loolu comme mu sa dégg wala mu di la digal ci loolu lay nekk ak mom ci bopam lolu mu don soññee diko digle dafa xamone jamono fi mi ñëw xam ni mi mel mu ñu di lu digal yoon wi ni jaar di ci tagat mag ñi di leen ko wax di wax ne man tawajjaha ila arrahmani irrahimi maa sheytaani rajimi faraqnahu sëñ Tuba nee na képp ku jëm ci yàlla boole ci shaytané man sëñ Tuba tagona na mag yow man tawajjaha إلى الرحمن الرحيم كجم تي الله مع الشيطان الرجيم بولا تي الشيطان فارقنا تقول ما يو كون كجم تي الله كسه جو أندو لك الشيطان سن أنا ما يو نو أند كجم تي الله نك الشيطان تقول ما واي نلا أبجام دي جم تي الله سن تبان إذا توجه إلى ربي بإمثال أوامري واجتناب النواهي وصل إليه أبجام دسايو جوجي jël daa bay topp ndigalul yàlla ak bàyyi terem seigne touba nee na faw faw faw mu yegg ci yàlla al abdu isa tawajjaha ila rabbi bi fil awamirihi wa jitna ijtinaabi nawaahi wasala ilayhi fa ida qala lahu ya rabbi inni uhibbu kadha qala lahu ya abdi qus seigne touba nee na jaam bu nekké ci lola ba yegg ci yàlla boromam bu yeggé lum ñaan yàlla nako man la yàlla bëgg na nangam da na ko yow sama jaam jëlal bu ne ko ragal naa nangam mu ne ko sama jaam mucc nga na ma muccale woon Ibrahima ca bënn ga muccale woon ko Muusaa ca baxru Kalsuum waaye dégg nga kon moom lu ma la wax mooy bu fekkee dëgmal na ca ca ndigalu yàlla bàyyi tere noonee mu leen doon wammate nag ci melo yooya di fekk koo xam ne ci boromam lay jëm mu tàggat ko ca moom mi leen doon wammat jëme ci yàlla mooy ki ëppoon yitte ñëpp dafa am benn naar bu doon bind ci sëñ Touba di wax ne xadimul Moustapha xawsil amimi lisaanul xaali tashhadu lil qadimi bi misli cheikhi lam nasma xadisa wala fi saalifi dahri qadimi nee na sëñ Touba dafa yéeme yéeme gox ku mel ni moom mësuñu koo dégg ca ña wëy lu histoire lam yadri insu mislahu fi ma xawaa والكل حارة لشأنه المكتوب كان خمول في إستوار كمال لسان توبا إستوار مثل أن كمال لسان توبا ويقول كل يعلم أنه فوق الذين حكاهم تاريخ بتعميم لن من خم دال تمي لوير موي كل إستوار مثلا نقلي خم لسان توبا في لكو كون جسنا ne ku mel ni moom amul ci ñoom yi kon bi ولا في سالف دير القديم امول تي نيو ياس ني في نيك امول تي نيوي كوم لي سن توبا تا لان موتاخ امول تي نيوي امول تي ني ياس موي تك تانكام تي لا يالا ديغلا خول سيد موسى كداني خامنا نيت دا لا سونو دي دالو في لي سن توبا امول نيك بومي تد امول لال بومي دالو سيد موسى كداني بو تشيري نلاوي گت يي موم ماغي خول بو نيكول لي تيلي في ماغي يري مول bu gëj yey nelawit ruuga dem aras moom xanaa war na ca alburaax waxay ruum te laylaa du ko tee dem ca diwaan diiwaan ngeenu sàkk rijal yàlla naan xoola sëñ Moussa Ka bu njëkk boobu sëñ Moussa Ka dafa wax ne xoola da ko tàmbalee ci waxi nu neex tagg ko sëñ mu Ka da ne koo mas a gis sëñ bee ko dàq sama ñaari gët mës la gis ku mel ni sëñ Tuubaa taar ak baax alam tara aynaaya mithla cheikhi jamaalan wa kamaaran wa saada wasi nee na musumaa gis ku mel ni sëñ Tuubaa ci taar musumaa gis ku mel ni sëñ Tuubaa ci mag daal di ñuy jàngal nag nga xam na yow mi nga xam na ngay seen gis sañ Tuubaa rek gis photo bi mu muuru sëñ Moussa Ka wax la ñaata ñaata muuraay ñaata kaala la doon muurawoo ak nu sikkin bi meloon nu mustaas yi meloon lépp sëñ Moussa Ka jàngal la ko nu yaram bi meloon mu wax ne da daan muuru kaala yuy rawar yankunan fete walum nday joor bu muray gënee lam set sikin bene las di saf laari wurus moko jek ay fas xesu ba pek fofu di aw ñuul yaram ba ka rafa mel jani jaani ngoolool fitam ba gëna a mel di abdou jambar jàmbaar capitaine wuri ni soldat ci kun lay telephone xel ma na de xolam ba gëna leer lamp jafal mes bu cër yee nelaw it gët ya ma ngay xol bu nekkul di teeli fit ma ngay yeri mol bu gëddee nelaw it wu ko dem aras mom xana war na ci alburax waaye suum te lay laa du ko te dem ci pays diiwaan pass yo ngeenu sakkar rijal ya lay naan bu sonne ba coono yi wacc ci ko ba mu diis ba mënta yëngu mom seigne touba neena bu fekku di telif it ngay mool bu yërut ay mool bu nekkul di jang mi ngi bind ta bobu day sonn ba nga xamne ne bi tege ci kawam xajul ci kaw doom adam waye bu nekkul di taalif it ma nga yëri mool lu mu sonn sonn sonn bu nekkul di bind di tagg yonent bi alayhi salaatu salaam sëñ Tuubaa moom ma ngay jàng waaye bu gët yey nelaw maanaam bu sonnee ba mënta ñàkk nga xam ne ni ko sëñ Sàmbay rahmatullah alayhi nett leene daawul am fu muy xaari nelaw day ne ci liggéey bi di kër kër yi kër kër yi kër kër yi ba mu jatt ko rek mu ne këlëng benn na nawaat bëri te sëñ Maxtaar si nee na seen Maxtaar Sylla ci bëkk néegi sëñ Tuubaa yi ko gënoon a jege ci la bokk sëñ Maxtaar Sylla nee na daana kàbbar takkusaan wala mu kàbbar tisbaar na allahu akbar julli ñaar rakka na dall ci suuf bu nee dall dana nee na dana ne fa dall ab diir léegi-léegi mu def ko ba waxtu wu dil siwaat bu naan ñokket ñaari waxtu bu fekkoon ne ñaari rakkay tisbaar la la la ca la daanoo woon bu naan wat bërét ñaari takk rakkay tisbaar ay jotaan mu wóyal allahu akbar nga yëg da jékki dall ngeen yu diis yi daj léegi-léegi ab nat lay doon léegi-léegi lu jël ci jàmm ñi mu yanu ko bala bu wara ñew nak bu nat jógaa ba jëm ci njabootam mu deer deer lo ko ngir gëm da na ko waral kon bu gëd yi neew neena bu demé ba ba ba egg ci choona bu diis ba mënu ko supporter bu ne dal ba ba ba di na gëm rek xol ba dem ruuga dem aras moom manam bu bu fekkee ni serigne touba japp nga ne Cheikh Amadou Bamba mi mi ngi dalu neena ruuga ma nga ci aras di régler problème te laylaa du ko tee dem ci pays diiwaan yan saw na laylaa wa soxda fii qiyaamihimu mustanisina bi adkaarin wa ayaat bu demee ba ne ci nee na laylaa du ko dem ci pays diiwaan mooy moom du koo xam ne am na jenn yitte ci àdduna wala ñoo yittee wala ñam fan la jëm foo ko fekk ma nga ci pays boromam ca diiwaan